ko ci boo xoolee euh, dëkk bu ñu gën a jege muy Côte d'Ivoire aujourd'hui mbas mi fépp la laal ñoom te tenir nañu ay élection beneen bi mooy fanweeri at ak ñeent a ngi nii pour amal ay élection locale fii ci Sénégal day mel ni euh, dañ ciy jéemal laxas ay jaan fichier xool lii xool euh, maanaam xool gauche xool droite ba finalement dañ koy dàq wala dàq gi day bari est-ce que loolu du ñëw entaché lu jëm ci wàllu démocratie gi nga xam ne réewum Sénégal amee na ko ci askan wi bu ñu sàkkoo am xemmemteefu ñu dem taxawal ay élection ñu mën koy taxawal ci à date échue. d' accord naa yow ne su ñu waxee dañu war def nangam dañ koo war a def ñun ñëpp waaye suñu waxee dañu war a def nangam am ñu taxaw ne ñun dañu soxla nangam bala ñoo def nangam ñooñu am nañ te responsabilité ci suñu bougélee date bi. loolu laa bëgg ñu nangu ko je suis d' accord que suñ ko jàppee ñu ne dañu war a wat dañu war a wate en deux mille dix neuf war a wate en deux mille vingt deux dañ ko a wate. njiitu réew wala sax bon pas njiitu mais pouvoir bi euh, euh, Fatou wax na ko sànq période bi ñu nekk euh, maanaam favorable lu leen ci ñu tënit ci ay élections est ce que loolu itam. non loolu seen gis-gis non politique boobu ñuy gis est ce que tam du andi jafe-jafe ci élection yu war a. non non juum nga si wax ji xam nga li nga mooy date ñaari date lañ jàpp. décembre janvier décembre ak janvier. est ce que en un mois gouvernement bi mën na liggéey loo xam ne liggéeyu ko donc dama bañ wax loolu c'est-à-dire y a xam nga euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy réguler communication yeeg débat yi man dama leen wax toujours dañu war a nekk dañu war am un esprit boo xam ne dañuy synthèse li nga xam ne moom la ñaari boor yi wax gouvernement bi su ne man décembre laa jëm joxe ay raison euh, opposition bi ne man décembre laa jëm joxe ay raison yéen ñi nga xam ne yéen yéen Sénégal yi nation bi leen déglu da ngeen war ne gouvernement bi day nee na nangam ji la wax lii moo tax mu wax ko opposition bi nee na lii moo tax ñu wax ko su ko defee Sénégal yi ñu mën a tiire entièrement ah, euh, loo xam ne danañ ko mën a jëriñoo. mais FRN bi d'accord ne euh, fichier bi nañu ko audité muy benn benn pàcc ci opposition bi tey def nañu conférence de presse ci ne lu jëm ci élection locale yooyu mën nañ ko amal bel et bien ci décembre 2021. waaw dama ne. waaw xam nga li li ma bëgg wax yow. ma yaakaar ne toogoo fi pour opposition. déedéet damay damay laaj. non non attends attends non non day laajte day laajte man damaa bëgg. man damaa bëgg ñun ñëpp ñu am responsabilité. jël responsabilité entièrement ñu xam ne ñu réew mi la ñu fi nekkal fu ñu nekk di wax réew mi la ñu fi waxal. réew mi dafa am ñu ànd ak ñoo xam ne ànduñu. non non non non si cette question là. elle est incisive. ça dafa am lu ko tax a jóg. dafa am góom boo xam ne moom la bëgg a suli am góom boo xam ne moom la bëgg suul man je veux que nous soyons au-dessus de tout ça parce que Sénégal def ñuy déglu dama ne benn weer jarutu xuloo su fekkee ne opposition bi dañu bëgg a gagné xam nañ ne ñoom dañuy gagné xam nañ ne circonstance yi may ne ñu gagné celui qui doit trancher le président de la république bi wax ne dem leen jaloge bu ngeen demee am ay points d'achoppement ngeen ñëwaat ci man et que tey dialogue politique bi moo indi li nga xamante ne mooy audit du fichier électoral évaluation du fichier électoral pourquoi moom mi nga xam ne mooy am le dernier moo mënul trancher peut-être oh, en faveur de l'opposition pour wane ne au moins ñi faruñu ak moom pourquoi yow xam nga nag mhm. gàtt xel tam baaxul parce que su fekkee ne mooy président de la République ngeen ne ko ñun su suñu jubóowul nangu nañ ñëw si yow nga tranché bul ko ne tranché la en ma faveur bëgg ko wax parce que moom moo yore am na lu mu xam te xamu leen ko am na responsable bu mu am ti amu leen ko. Mhm. kon yéen mënu leen a décidé en tant qu'opposition à la place du chef de l'État. Mhm. nañu waxante dëgg parce que ce n'est pas pour rien qu'il a gagné ñun ñoo fi nekkoon Abdoulaye Wade dañu fi génne bañ fi nekkee ñun ñoo doon dogal ñun ñoo doon def Sénégal yi di nangu. Mhm. wala Sénégal yi di bañ kon ku fi nekk tey nga gagné yow da ngaa war di def. dañ war a nangu nañ wax li ñu bëgg suñ ko amul Sénégal yi xam ne li ñu bëgg ñoom amuñu ko soo ëllëgee suñu def bilan Sénégal ah ñun kët déggoon nañu opposition yi bañ ne lii lañ bëgg yow da nga koo bañ kon ñun du ñu ànd ak yow tey. d'accord voilà monsieur le ministre mais monsieur le ministre. ndey mais dafa am ñaari baat yu ma ko bëgg a laaj rek. waaw ndax su rëccee foofu après dootuma foo mën a dugg. waaw dafa bëggee waaw. yaa ngi taxaw rek affaire bi kon war na war na ñor bu baax. ñor na ma lool voilà. ndigal ma jege sax. exactement waaw monsieur le ministre. ginnaaw bu ma la nuyoo li may laaj rek mooy ñaar. démb ak bërki démb sa way jur nga nekkaloon Ablaye Wade def naa way jur la ci yow nga nekk ak moom ndax daan nga ko digal ndax daan na la déglu ndax daan na la déggal tey nga jóge ci moom dem ci sa rakk u mag yéen ñëpp muy seen baay ndax yaa ngi koy digal ndax mi ngi lay déglu ndax mi ngi lay déggal ak loo koy digal ndax fa la nga jóge su dee daan nga leen digal doonoo daanu daanu am déet tey fi nga nekk kii ndax mu ngi lay taatal nopp ndax yaa ngi koy digal ndax mu ngi lay déggal ak loo koy digal loolu dong laa laaj. waaw benn lu lu nguur gu dul jeex amul. lu lu nguuru yàlla du jeex. donc daanu moom du du xas. kii am day ñàkk kii dund day day dee kuy taxaw day toog yaa ngi taxawoon léegi. léegi da ngaa toog. donc loolu mooy àdduna. donc loolu moom kenn mënu koo xasee kenn. mais non non attends attends rek day defal ndànk rek. dafa ndànk rek digal dafa ndànk rek. kuñ dul digal amul. waaw xalifa général des Mourides. waaw xalifa général des Tidiane. Ah, ñoo ah. gën a màgg ci ñi nga xam ne ñoo yore tey l'islam. Ah, ak déglu ma déet bu déet man maay wax. ah waxal man maay wax. waaw dugguma foofu de man maay sama responsabilité. dugguma ci tari man ma duggoo ci man maa ki dugg. waaw man maa engagé sama responsabilité. man gënoo maa gëm Mouride yi gënoo maa gëm Tidiane sama xamal sa bopp. waaw d'accord dama la ko bëgg a wax rek mën ngaa gëm. xamal sa bopp de donc maa engagé sama responsabilité dama ne. waaw kay xalifa général des Mourides xalif ah. général des Tidiane. Ah. ak ak ki nga xam ne ah. moo jiite jàngu bi. ma ne ñoom. dañuy waxtaan ak seen nit ñi. ñi nekk dañuy waxtaan ak ñoom. ñi leen wër dañuy waxtaan ak ñoom. lu ñu xam kan moo leen ko wax événement yi xam lii lii passé. kan moo ko wax sëriñ bi ndax sëriñ bi dina toog di déglu ay rajo dina def nangam. kuñ fi dul digal kuñ fi waxtaanal amul. chef de l' état Abdoulaye Wade dafa ne. Mhm. yow conseiller président nga. deel wax président li nga xalaat su ko neexee mu jël ko su ko naxalee mu jël ko parce que moom la réew mi fay il a la responsabilité mhm. de prendre des décisions et ëllëg lu ci ñëw ëllëg moo koy gàddu man dama koy di dama ko digal Ablaye Wade da ko daan digal dama ko daan digal sama morom di ko digal ma la n'est pas tenu mhm. liñ koy wax mu di ko mu di ko def il n'est pas tenu mhm. Ablaye Wade dana wax sax su ngeen waxalee président jël leen seen xalaat ngeen jox ko te ngeen dem moo xam da nga koy defee. ni ma doon waxee ak président itam dama koy waxee ak président Macky Sall bii. Mm-hmm. wax naa ak moom dara loo xam ne amal na ko njëriñ mu ne ma farba. man de gis naa ne yéen ñi nekk ci biti da ngeen di gis loo xam ne. Mm-hmm. ñun ñi nekk ci biir duñ ko gis. Mm-hmm. kon lii wax am na importance. kon mi ngi lay déglu. non dama ne du man rek maa koy digal. waaye dama ne man dama ne dama attends rek dama ne la. may ma ma tudd ma tontu la. mu toll ci réew mi loo koy digal may ma. dama ne la président du ma laaj mu ne ma farabaloo xalaat ci nangam. Mhm. bés bu ma xëyee wala ngoon ma gis loo xam ne ah, xool naa ko natt ko ci population bi mu gën ci peuple bi te ma xam ne lii eggagul ko wala defagu ko. Mhm. dama ko naan président ma bind ko ne ko président lii moo gën ci peuple bi su defee moom la léeg-léeg mu tontu ma léeg sax du ma tontu mais man sama sama warugar mooy. Mhm. expérience bi nga xam ne am naa ko depuis le président Senghor. d'accord ma nekk dans l'administration nekk ak ak ak Abdou Diouf. Euh, nekk ak ak Ablaye Wade. Mhm. nekk ak Macky. Mhm. bokk ci réew mi tekki fi dara. mais su ma gisee loo xam ne baax na ci réew mi ki ma yaakaar ne su ma ko waxee mu réaliser ko dama koy wax. c'est clair c'est très clair alors monsieur le ministre juste euh, par rapport ak sànq euh, affaire Ousmane.